askan wi ku jégi fa nar a kalaate exploser tasaaroo ndax fi mu toll ni jubootuñu bokkuñu fu ñuy xool la leen féewale nag mooy dialogue politique ba nga xam ne taxaw xalifa Sall ak i députéem fa ñoo demoon bokk ca ba tax waa yeewi askan wi naqarlu ko woon ba pare dàq kajji leen génne leen yeewi les si ko yéene kaay na Pastef ak i aliyem ñoom àndal fa ñoo bëgg a tàqalikoo ak député yu taxaw Khalifa Sall ci assemblée nationale waaye fa ñoo seetlu ne député ya ànd ak Khalifa Sall yombaluñ leen affaire bi fa a jur coppite ci bureau assemblée nationale bi nga xam ne moom fañ koy yeesal tribune yéene kaay na ko voilà bureau assemblée nationale boobu ñu war a yeesal réeroo bi am diggante taxaw ak Pastef ca seen député ya arrangé bu baax waa benn bokk yaakaar yaw seetal su fekkee jubóowuñ ba tasaaroo su ko defee post ya am ca bureau assemblée nationale ya gën a bëri waa benn yi ñoo koy jël ndax plus fort ci lañ leen di ëppalee yéen kaay bi na bennoo kay fa nar a am doole bu baax ca bureau assemblée na les si que yéen na ko faale ci yokkal njiitiram Macky Sall moom dajee na ak député yu benn bokk yaakaar ca pale ba la leen dalal waaye fa na wax na hey yéen député benn yëpp ñëpp na leen Amadou Ba ñu ne ko d'accord nañ ñoom ñëpp Amadou Ba lañ parrainé ba mu des ñett wala ñeent député yoo xam ne fa ñoo tukki nekkuñ Sénégal yéen a kaay bi ne waaye kan moo nar a nekk président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar njiitaram Macky Sall fu ko nëbb de ba léegi waxul kan lay tànn naka noonam questeur bu assemblée nationale ba léegi kenn xamul kan la sikk nekku ci ne fay am coppite l'observateur na njiit mi kay fa ñoo boole ca a kaay na ko njiit réew mi bu baax watu député yi si du quotidien ne wote yi di ñëw na 2024 ngir njiitaram Macky Sall koo xamante ne du far fenn mu jiite wote dafa mel ni daal njiit réew mi la mu ngànkoon yab li wut ko de xalaatuta tànn sax koo xam ne farut fenn déedéet direct news moom fa ñoo xamal na département bu Diourbel fukki maire ak ñaar ñoo fa nekk juróom-ñeenti maire yëpp wan nañ ginnaaw benn bokk yaakaar l'évidence yéen kaay na ko faala ci yokkal Kaolack ndangaan docteur Alioune Diouf dakkal na ay yëngatoom ca biir benn bokk yaakaar ndax fa gis na ànd gi mu ànd ak ñoom daal fañ koo ñàkk a jox orma ak gëdd faala wuñ ko daal ci gàttal moo ka toogul nag ndax fa génn sama jaar-jaar ci réewum Sénégal li ma fi liggéey moo ma may tey samp sama ndënd laaj réew mi ci tur parti bii nga xam ne moom laa jiite muy M10 liggéey Sénégal si jàmm ba tey l'évidence yéene kaay na diiwaanu Linguère ñoom amuñ benn ministre ci gouvernement bu bees bi ñoom it ña ngay artu njiit réew Macky Sall a dànkaafu leer la neen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne xàtteeb Ousmane Sonko bañ amaloon ca Ziguinchor coow la ba léegi pënd bi wuree gudde yow fa ngay xool mbootaayu attekat yi ci Sénégal fa ñoo ñaaw lu naqarlu jëf ju ñaaw ji nga xam ne agence judiciaire de l'État def na ko keroog bi ñuy atte Ousmane Sonko ko te mooy fa attaqué saaba si fay naan ko yow sa rakk ji adjoint au maire Ziguinchor laak kon waroo atteg yi ni mel mbootaay attekati ci Sénégal fa ñoo wax ne loolu fa ñaaw trop te warut jaaduwut laa si kaay na ko moo taxit attekatu Sénégal yi fa ñoo jubbanti gàgganti agence judiciaire de l'état boobu bés bu yéen kaay ne UMS kay mbootaay magistrat fa ñoo mer moo tax fa ñoo dóor seen loxo ca table ba na leen ni li fa ñaaw kenn du ko seetaan indépendant yéen kaay fa ñoo dal ci kaw agence judiciaire de l'état xam ne fa song attekat bi ñuy wax saaba si fay fañ ko wax ci ab xam ne débat juridique mooy li jaadu waaye def loo xamante ne fay gàkkal deru àttekat bi wala di ko suufeel loolu kenn waru koo def ki fi nekkoon procureur Alioune Ndao ci Vox Populi na leen pourtant nag àttekat bii ñuy wax saaba si fay lii mu àtte te mooy dëgg te mooy wax ne Ousmane Sonko moo nekk ci dëgg nañ ko delloo ci liste électorale yi fañ koo jaay doole gis nga loolu mu def fa siggil àttekatu Sénégal yi ndax ñu bëri si ñoom li saaba si fay def moom la ñu ruumandaat ci suuf saaba si fay nag am njàmbaar ak dëggu ragal yàlla àtte dëgg ba taxaw wax ko ca kaw Alioune feelu ko ne saaba si fay lii mu def fa siggil àttekatu Sénégal yi ñoom ñoo ci njëkk am ndam ñoom àttekat yi ndax ñu xam ne am na attekat yoo xam ne kenn mënul leen a ger dëgg rek la ñuy atte ki fi nekkoon procureur Aliou Ndao na ko bu leen fàttee soxna si ñuy wax Mariam Gueye Diop moom it ca tribunal bu Ndakaaru waxoon na dëgg te mooy ne Ousmane Sonko moo nekk ci dëgg fañ ko war a jox parrainage am maître Bamba Cissé avocat Ousmane Sonko ne nguur gi dugal recours dem cassation jarut ko ndax dëgg gi fa leer naññ fu ñu dëgg ga fay jib te moo yëf yi jaarut mook Ousmane Sonko ci wata 2024 yi xeex bi jeexagut de Njaga Silla xam-xam màcc ci wàll wi na leen hëy xàttekat bi dogal bii mu jël fañ ko war a jëfee ca nam gën a gaawee mooy dugalaat Sonko ci liste électorale yi ak parrainage am yéene kaay bi na ko kàddu gu mujj gi Cour moo ko xamee de ñu ne déetawaay mbiru Mame Mbaye Niang yi baneen menace la ci Sonko wal fajir yéene kaay na leen Ousmane Sonko kay fi mu toll ni jege na lool ngir bokk ci wata 2024 yi waaye ba tey boo ko seetloo Ousmane Sonko sori na xamal kan mooy àttekat boobu ñuy wax Sabassy Faye nga xam ne fi mu toll ni fa Sénégal xatte lam xatte dëgg tax na fi mu toll ni turam fa siiw ñëpp a koy kañ di ko bàkk ak rafetlu taxawaayam yéen kaay bi ne waaye faa di wax ne moom mii fañ ko mosoon a yóbbu Koungheul la taxoon ñu yóbbu ko fa ak yeneen histoire am ca biir yéen kaay ba leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy entreprise bi ñuy wax Astron nga xam ne fay exploité wàllu zircon ca Niafrang fii Sénégal permis ba fañ koo annulé dakkal nañ liggéeyam la tax libération moo ñu ko xamal sor yaw fa ngay xool Bakary Diédhiou mii takk der yi fañ ko yàgg rëbb ndax fa njort ne fa bokk si ñi nga xam ne ñoo doon jox xaalis ndaw ñi ngir ñu rajaxat ci ñaxtu yi fi amoon ci weeru soin moo tax takk der yi fañ koo gis rek jàpp ko keneen ku takk der yi jàpp ab maarabu bu ñuy wax Cheikh Ibra fa ñoo njort dugal ak loxom ci attentat bis bañ taxaloon ca yaraax léegi tegagum nañ ca loxo juróomi nit libération moom it fa ñoo xamal ne ca dëkk bu sell ba Touba Mbàkke jàppante bu métti moo f xamoon diggante ay Baye ak lenn ci ay ndaw ginnaaw boo xamante ne Baye Fall yi fa ñoo dem ci benn kër nañ jëflanteeg ñoom tax jur fitna ak mer vox populi moom fa ñoo xamal musiba naaru laay bu am ca Kaolack ndàngaam yaaw seetal benn xale bu góor bu ñu wax booy pullo agent sous-traitant la ca Senelec fa doon liggéey ca courant ba courant ba daal di koy maas ba mu faatu sedd guy ca saasi nag ay faatu gu métti ndeysaan yëf yaa nga amee ca quartier bu ñuy wax Fass Cheikh Tidiane ni ki démb les si ko yéene kaay moom fa ñoo xamal na benn communicateur traditionnel bu siiw ca diiwaanu Pikine Ndakaaru moom takk dere fañ koo teg loxo ndax ñu ne yooyu yaay fa doon violé tëddee xab xale bu góor bu xam ak ñett aay